yàlla yàlla defal ko jàmm Pape Matar génn na ci blessure ci match bi nga xam ni ab équipe am di Tottenham Tottenham doon na ko football léegi na ko ñëpp ñaanal yokk per yi génn na nag wante nag daanaka bu ñu xoolee sooxul benn tànk liñ ci mën a jàngatee mooy eh, jàmm ak salaam moo ko dal tey jàmm ak salaam joojee yàlla na sax dàkk ba fële ca Côte ndax fi mu toll nii euh, gone yi war na noo def rassemblement démb la commencé tey jii ñu ci bari war na noo wàcc ji fële ca jam ñaajo kon moom moomee ñu ñaanal ko jàmm bala noo dugg ci xibaar ñu sàkku ci yéen ngeen def seen i abonnement yow mi door a ñëw abonnement yi dana am solo yow mi ko def ba pare cant ngërëm ñeel na la di ziar sama mbokki mberengue yi catalan yi nga xam ni ñoom ñooñee daanaka ay champion la jàmbaari fakk tëdd ay célibataire nag ñoo ci ëpp ma tooñ leen tuuti ndax maak ñoom noonu lay demee ci xibaar yi dàgg sante bi fële ca commentaire ya Pape Matar Sarr ngoog ngeen gis ko mu sëngéem kii di Edmilson jàpp bopp ba taf ko ci boppam xam naa la na ca xel ma moom mii di Edmilson mooy gone gi nag kan bi mu war a dëgmal yal na yàlla defal ko jàmm ba du am benn jafe-jafe génn na ci blessure match bi buy jeex léegi ñu leen di indil yeneen information yoo xam ne supplémentaire la waaye loolee lépp nag ginnaaw bu ñu defee li leen di entraînement Barcelone tàggatu koogee def na ko ñoom ñi ànd ak kii di Safi Sappale taxaw na euh, bi mooy ñetteel bi yoon nag euh, bu ñu juumul bu ñu juumee ngeen jubbantinu ñuy def ak tàggatu goo xam ne ña ngay waajal li leen di match yi nga xam ni gone Barcelone yi war nañ koo def mu nar a nekk match yoo xam ni yu ama solo la la Arajo ruut na boppam ah, ci euh, loolee di ñax mu tooy ma nekk fële ca Barcelone mu nekk tàggatu goo xam ne tamit gis nañ ni gone yi ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax Roque ah, di kile di ku mujj ki ñëw ci Barcelone moom it mi ngi commencé Euh, dégg jàmm di commencé ànd ak gone yi ci tiktok des heures bi nga xam ni saf bi nga leen koy defal ñoom ñëpp nag bokk nañ ci tàggatu gi mu nekk tàggatu goo xam ne gu ama am solo la vacances yi gars yi dañ koo dagg ñëw nag mën a liggéey ndax liggéey mooy maye ndam liggéey na ba sonn démb ci marché bi Manchester doon am ak euh, Nottingham Forest fukk ak juróom-ñeent di numéro bi muy sol di occasion yoo xam ni euh, daanaka intercepté na ko moom it mayul dara ci défense bi tey jii su ma doon wax bu ànd ak dogalu borom bi défenseur bi ëpp doole ci àdduna wala ngal kàpp loolee dama ko jox waaye Angleterre gi ñu tolloon moom mooy ki nga xam ne mooy axe central bi gën a taxaw car macha allah euh, laf cat ci moom moom mii di Moussa Niakhaté gars yi gërëm naa leen sant leen jërë ngeen jëf yeneen information ñu ngi koy lijjanti mais dana soxal nag tolluwaayu kii di Papito Pape Matar Sarr Gorek gi fan la toll jërë ngeen jëf.